Euh, julli tisbaar ba noppi nañu élection du am te booba minuit ci minuit euh, ci la élection bi waroon a démarrer euh, mooy li ma wax lu musta am xëy na ay problème mu boppam loo bëggoon a régler man ci suma gis gi sama njàngat boo ma ko laajee xëy na kandidaa am la wóolootul woon bëgg koo changé voilà am candidat boo xam ne xëy na bëggoon na ko ci dugal du moo ko tudd ñu génne ko ci mais loolu conseil constitutionnel moo ko décidé ku mel ni man man dama jàpp ne sama sama parrainage dañ ma ko dañ ma ko foqati voilà sama mbokk ndar yëpp dañ leen a génne ci sama ci sama parrainage mhm. waaye loolu dellu na féete na ginnaaw du lu ñuy sax euh, voilà expliqué waat euh, damay nangu dogal mhm. parce que euh, xam ne suma intérêt bopp intérêt Sénégal moo ko sut fuuf voilà li ñu war a def mooy dem élection am na ci ñeneen ñoo xam ne ñi vraiment injustice bi ñu leen teg aussi Euh, kenn mënu ko comprendre ku mel ni Ousmane Sonko. yoon may ko ñaari yoon. Mhm. mu doon candidat. <laughs> ñu nangulu ñu ko ko. Mhm. Euh, loolu it injustice bu bu bu grave la. Mhm. Euh, waaye loolu ba tey rek dañu ne nañ jiital Sénégal dem ci ay élections falaat beneen président. Euh, bu ko defee ñu mën a am euh, changement bi nga xam ne moom la ñu bëgg. Mhm. donc président Macky Sall moom moo créé la crise institutionnelle bu bàyyi woon rek. Mhm. calendrier bi le 25. Mhm. jël list bi nga xam ne conseil constitutionnel moo ko tànn. mais kon doo am problème du am benn problème. jamono ji ñuy wax kon ñu ngi wax waxu deuxième tour. wala ñu ngi wax ñu ngi ñu ngi ñu ngi pare installer le prochain président du Sénégal. loolu mooy loolu mooy mooy mooy li waroon a am. donc jeexi jaaxa ji ngay wax yëpp moom moo ko sooke. comme moo ko sooke mais vraiment na ci jéem a indi pexe jéem a indi pexe mooy jàpp datu élection parce que gisuma lu ñu waroon a mën a tere dem élection ñun ñu ngi organiser élection depuis ñaata at voilà euh, te man jàpp naa ne bien avant les indépendances euh, loolu yàgg na même ci jamono tubaab yi dañ doon organiser élection muy jaar yoon voilà donc euh, gisuma vraiment lu war a tax mu bañ a organiser élection li ma jàpp nag moom dafa bëggul def passation ak kii ñëw hmm. loolu laa jàpp mais loolu aussi vraiment du du du cëram. dinañ si ñëwaat léegi ñu des ci manifestation yi est-ce que euh, manifestation woote euh, rassemblement ci benn bërëb euh, voilà dina tax ba président ngeen contraindre que mu changer li nga xamante ne mooy stratégie ba wuyu leen ci li nga xamante ne mu ngeen ko da ngeen ko bëgg di ko sàkku est-ce que tey jii manifestation yooyu noonu dina am bi nga xamante ne moom ngeen bëgg. ah defe naa ne ay manifestation moo tax prolongé wul mandat ba décembre. Ah. lay fàttaliku maa ngi lay fàttali ne. Euh, moom li mu jàppoon mooy euh, mën a dem élection euh, seulement en décembre. donc dafa bëggoon a yokk ci mandat huit mois. waaw ah, mais bu ñu toogoon rek ne yàcc moom lay defa ah. donc dañu dañu mobiliser wu. malheureusement malheureusement am ñeenti xale yu Sénégal yu ci yu ci faatu. loolu loolu rek waroon naa tax vraiment président Macky Sall ne bëggatuma lu mel noonu di fi am jàpp bésu élection noonu la noonu la bindoo manifestation bon maa ngi gis ne fan yii mu ngi koy autorisé euh, mais bu ñu ko autorisé woon dès le début amaan na kon kenn du ci faatu voilà bu ñu reporté wuloon élection yi sax déjà kon defe naa ne kenn du ci kenn du ci kenn du ci ñàkk sa bakkan mhm. euh, maa ngi jaalit seen seen famille mu ñëw yokk nag ci li nga xam ñi nga xam ne jotoon nañu vraiment ñàkk seen bakkan au mois de juin 2023 mhm. ba ci mars 2021 loolu di vraiment deret ju tuuru ju baree baree bare ci ay doomu Sénégal doon ay ndaw démocratie defe naa ne loolu la ñu bëgg a éviter mooy ñuy dem ci activité yoo xam ne yi euh, deret da ciy tuuru parce que euh, démocratie ay charte la boo ci tegoo rek du am problème waaye du doon sama opposant bi mën na maa gañe xaar ma faagaagal ko tëj ko ci kaso bi ñu génn di manifester voilà tuyu bal nga tëdd yooyu yëpp daal euh, li ñuy ñaan yàlla mooy voilà tubaab naan plus jamais ça bu fi mës a amati euh, ci àddina ak régime bi waaj a ñëw euh, loolooy suñu yaakaar en tout cas. yaa ngi koy wax léegi moom dafa war a jàpp datu élection le président de la République aussi jàpp ni euh, ci logique boobu la nekk ba wootee dialogue mais est-ce que du manifestation yi ngeen di woote ak conférence de presse yi ngeen di woote cadre bi nga xamante ni moom moo gënoon adéquat nekkul woon fële ca Diamniadio dialogue bi autour de d'une table ngeen waxtaan wax seen point de vue défendre ko devant président. waaw mais li ñuy dialogué la ñu xamul lan la war a doon d'ailleurs xam nga 19 candidats moom fukki candidat ak juróom-ñett fukki candidats yi ak juróom-ñaar nanguwu ñoo dem kon foofa dialogue amu fa parce que bu fekkee ne élection la ñuy wax ñaara ko seq électeur ak candidat xamul xaw ma ci keneen de bésu élection moom ñaari ñaari ñaari ñaar ñaara ko seq mm. ñooñu mm. waaw bu fekkee ne yow électeurs yi xaw ma candidats yi la ca ëpp mm. voilà 17 sur 19 nee nañ demuñu parce que gisuñu lu ñu war a waxtaane waxtaan nag moom war naa am après mais président Macky Sall mënta reporter élection yi ci coobare boppam waxtaanu cee kenn voilà def li ngay def ba noppi ne kaay leen ñu waxtaan ba noppi yow la nga def méngoowul ak yoon parce que conseil constitutionnel tegaat na ko ci yoon ba mu demee assemblée nationale am fa majorité <laughs> ba mu ñëwee conseil constitutionnel daf ko ne amoo amoo amoo sañ-sañu dàq ay élection sa loi bii nga xam ne jël nga ko méngoowul ak sartu réew mi muy constitution dellul ginnaaw loolu loolu aussi dafa rafetul sax ci ci am njiitu réew waaye noonu la noonu la demee euh, voilà <laughs> élection yi euh, pour ñu mun ko tànn quand même il faut un consensus euh, te bu nekkee yéen demoo leen wuy ji ko moom ñi mu àndal bu ñu jàppee que dañu war a dàq élection yi wala ñu war a reprendre at processus est-ce que quelque part doon jàpp que ni yéen seen ñàkk dem boobu ngeen di payer. non pas du tout ñun kay fi mu ne nii. bu doon match dañ naan noo ñoo ko gagné. Hmm. puisque conseil constitutionnel <laughs> nee na nañ nañ tenir élection yi. président Macky Sall moo war moo war topp li yoon wax fi mu ne nii. waaye mënu la mënu la mënu la contourner conseil constitutionnel. damay woote dialogue dialogue du doo dialogue amul amul amul li tubaab naan nature juridique. Hmm. kooku ay toog waxtaan. Hmm. taxul ñu ñu ñu topp loi wala constitution. loolu amul fen amul fenn fenn ba noppi ña fa toogoon mooy ñu àndoon ak moom rek ñi ànd moom rek afa fa toogoon. d'ailleurs ay ministre am la rangale ak yu ni mel voilà euh, benn baat moo fa discordant woon maanaam moo demuloon ci euh, li président Macky Sall mën a dégg mooy baatu euh, voilà église bi mm-hmm. jàngu bi man it dama leen di féliciter sax bu baax ci seen position bi ñu jël muy position wu dëgg loolu rek lañ fa rappelé ne nañ topp yoon nañ topp sartu réew mi conseil constitutionnel nee président Macky Sall organiser les élections dafa war a organiser élection bu fekkee ne nag mënu ko organiser wala bëgg ko mën na ko parce que lépp a ngi fi pour ñu organiser ko euh, mais dañuy ñaan conseil constitutionnel mu mu mu tànn bés. jàpp bés. président Macky Sall nag li gënoon a rafet ci moom. mooy mu bañ ñoo dugal ci li tubaab naan incertitude institutionnelle. parce que nag bu ñuy yegsee 2 avril. comme wax na fu ne ne day dem. bi yoon moom de gëm naa ne day dem. parce que wax na ko fu ne ba wax ko ci anglais bind ñu bindal ko ko ci anglais. Mm-hmm. mais na muy demee euh, wax dëgg yàlla du noonu lañ ko joxe woon réew mi. du noonu lañ ko joxe woon réew mi bi ñu koy jox réew mi président Abdoulaye Wade dafa jàpp bésu élection ni ko ko constitution waxee mhm. ñu dem premier tour deuxième tour Macky Sall gagné mu félicité ko ci téléphone mhm. jour boobu euh, téléphone président Macky Sall dafa bloqué ñu koy jéem a ubbi pour euh, xam ne président Abdoulaye Wade dina ko mhm. loolu mooy loolu mooy être républicain loolu mooy li rafet moom nag apparemment loolu bëgg ko def parce que bu fekkee ne yow da ngaa bëgg a dem avant sax élection pour ñu tànn sa successeur euh, loolu aussi lu lu doy doy waar la moo tax ñuy ñuy mobiliser moo tax ñuy ñuy ñaxtu parce que loolu mooy démocratie démocratie euh, euh, loolu loolu loolu la maye. Mhm. moo nekk suñ constitution. Mhm. boo d'accordulee ak ñi la jiite. voilà nga wane sa maire. Mhm. président Macky Sall xam na ne. Euh, yoon wi mu tegu du yoon wi nga xam ne moo méngoo ak euh, li ko conseil constitutionnel date ngeen bëggoon euh, ñu doon dialogué trouvé nañu date am nañu consensus ci benn date muy le 2 juin li ngeen doon bëgg mooy doon ko sàkku élection am avant le 2 avril mais voilà dina am le 2 juin début hivernage est-ce que déjà 2 juin boobu noonu sax ànd ngeen ci déjà. waaw xam nga foog ñuy leeral suñu mbokk yi ñuy yi ñuy yi ñuy seetaan. Mm-hmm. lan mooy problème bi. Mm-hmm. constitution suñu charte réew mooy li ñu tënk ñun ñëpp ah. dafa ne am na euh, ñetti cas de vacance maanaam situation boo xam ne euh, il faut mu am ku wuutu président de la république mm-hmm. président de la république nee na day dem le 2 avril kon xam nga dootu fi nekk mm-hmm. donc li nga xam ne mooy cas boo xam ne ci la ñuy wuutu président mooy benn maara mm-hmm. day imsi mu faatu koy ñaanal gudd fan ñaareel ba mooy empêchement maanaam mu tëlee ci wàllu xel wala waa wërgu yaram mm-hmm. ñu koy ñaanal voilà <laughs> wërgu yaram ñetteel ba mooy démission ñetti situation yooyu mm-hmm. du doon li nga xam ne moom lañ nar a jànkonteel le 2 avril donc amut fenn ci sartu réew mi foo xam ne fii nee nañu bu président de la république mandaam jeexul te ñu keneen mm-hmm. di wa koy remplacer amut kon loolu mooy dugal réew mi Euh, ci guddi gu bët setegul amul benn président bu ko wutu bu ko def du du Senghor du Ablaye Wade euh, voilà du Abdou ñu ñun dañ ciy am kersa ñun ñi àndoon ak moom en tout cas moi en particulier parce que président Macky Sall moom 1961 euh, la judd après l'indépendance donc li ñuy xaar ci moom li ñu doon xaar ci moom mooy modernité maanaam nga méngoog sa jamono voilà mais doo def loo xam ne lii paaw quatre-vingt-dix ans yi jiite Afrique moom la ñuy def moom la ñuy gis li tubaab li tubaab naan autocrate mm-hmm. voilà euh, loolu aussi vraiment euh, euh, au-delà de mbetteel franchement lu lu ñuy naqarlu la parce que boo ko yoboo deux juin mm-hmm. kenn mënu laa wax tey kan moo nar a jiite Sénégal entre le 2 avril et le 2 juin effectivement munoo ci am benn réponse bu jub amut mm-hmm. waaw kenn ku ne mën ngaa jóg ne man la armée mën naa jóg ne man la ñee ne non non non na doon conseil constitutionnel ñee ne président assemblée nationale tànn sa bu la neex lay doon waaw loolu pour lan président Macky Sall waral ñoo war ñoo dugal ci boobu situation bu organiser woon élection yi parce que moom it dafa dafa dafa def comme match football ray temps bi rayee temps bi ba ba ko conseil constitutionnel bindee ca ëllëg sa mhm. ba mu nee damay d'accord ci décision conseil constitutionnel bu jàppoon bés. Mhm. kon danañ organiser élection avant muy dem waaye dafa toog d'abord une semaine. Mhm. waxut après nga ne dialogue maa ngi xaar 4 cinq jours ñu indil ma rapport di temps bi pour que dootuñu am possibilité avant muy dem. organiser élection organiser élection moo tax ma jàpp ne man. kon ci dilatoire la ne kon moo déggee boobu ba tey. mais bien sûr que dilatoire la. Mhm. kon xam nañu demuñu gànnaar waaye xam nañ kañ lañ fay reer. dilatoire la. amul amul leneen ci dëkk boo xam ne da ngaa mës di organiser yu jaar yoon sans problème voilà euh, te xam nañ ne en un mois war nañ mën a organiser élection surtout que ñu ngi doon organiser ñu ngi doon pare élection yi depuis depuis cinq ans xamoon nañ ne le vingt cinq février mhm. deux mille vingt quatre mooy datu élection bi donc administration baa ngi ko doon pare ñëpp ngi ko doon pare mhm. voilà donc noonu la demee man dama jàpp ne xëy na ki ko war a remplacer ala kulli allen dañ koy remplacer xëy na kooku la bëgg la voilà. bii mooy jaaree gis ñëw di nga di nga ñu ko leer la mais ñu des tuuti rek euh, ci euh, boobule date le 2 juin bi est-ce que aussi euh, parce que leen luñ ci laaxaale ñoom waa ñu doon dialogué mooy que ñu reprendra le processus est-ce que bu ñu reprendre processus bi. mbir yi dina nekk loo xamante ni quand lu xel mënut a accepter ñeneen ñi nga xamante ni jàlloon nañu bu ñu demee par exemple ñu retenir leen pour x raison euh, est-ce que boobaa duñ leen teg ay tort. xam nga man sama wàllu bopp. bu ma doon topp sama intérêt bopp rek. dama naan nañ ko nañ ko répété. ndax man dañ maa tooñ ba ci kanamu yàlla moo wane preuve bi dañ ma ne sa treize mille parrain par exemple gisuñu ko ci fichier bi. man maa jiite woon liste Benno Bokk Yaakaar 2022. yoon dafa ne dix jours avant yi dañu a jox fichier bi. ñi diriger liste bi donc ma yoroon fichier bi. effectivement samay treize mille parrains ma ne leen ñu ngi nii ci fichier deux mille vingt deux. Hmm. loolu toppuñu ko. ma indi sama clé ne leen Saint-Louis mu ngi ci ñu ne ma waaw mu ngi ci bindal ma reçu ñu ñëw di contrôler ne ma ne ma gisuñu Saint-Louis. waaw loolu preuve à l'appui. Hmm. mais man ci suma wàllu bopp maa ne comme conseil constitutionnel ñun def nañ la ñu waroon def. Hmm. jusqu'au bu ñoom rek ñu jàpp fi ñu jàpp dañuy jàpp ne bon loolu la yàlla parce que conseil constitutionnel amul foo xam ne mën nga fa mën nga ko faa clamé candidats spoliés yi nga xam ne euh, ñooy groupe yi mm-hmm. parce que am na ci ñoo xam ne seen clé ubbi wuñ ko ak yu ni mel effectivement mm-hmm. boobu mën naa jàpp ne franchement du ma ma ne bu ma newul maa ko sooke it <laughs> voilà ma nga collectif bi <laughs> voilà donc euh, nde ba ñu bindee président de république si la jafandu te dañu ko bind <laughs> déglu rek li am na solo. Uh-huh. dañu ko bind ci délai de recours bi. mu ne pat. faalewuñu uh-huh. faalewuñu ba yëf ya passé ma ne mais attends kon kay jeex na léegi nañ jàpp ne lool la loolu la yàlla dogal suñu yàllaa defoon ñun waruñoo bokk ci élection bi. <laughs> il y a pas que nous wax naa sànq kaaw Ousmane ak ak voilà. Uh-huh. donc mu toog ba yëf ya mu ne leen kaay kaay leen ñu waxtaan ca pale ba. ña xam nga lu mu leen wax mm-hmm. mënuma ci décision conseil constitutionnel dara bu ñu waxalee yàlla rek loolu la leen wax effectivement wax na ko à la RTS ah, léegi nag mm-hmm. ñu ne dañ ñëwaat ci conseil donc lan mooy c'est-à-dire Sénégal dañ dem ba aussi il faut que parole lu président de la République di am valeur moo ñu jiite moo ñu féete kaw en tout cas ci wàllu euh, voilà euh, ni ñuy doxalee àddina moo ñu ci féete kaw mm-hmm. kàddoom dafay am solo yow mënoo ne mënoo dara ci décision conseil constitutionnel dem leen toog jàpp leen yàlla ñëwaat ne non non non non euh, nañu xool nu ñuy indiwaatee nit ñi non conseil constitutionnel joxe na liste définitive mm-hmm. d'ailleurs bi mu bi soxna Rose Wardini ne bokkatuma mm-hmm. dañ koo dindi effectivement publier waat ne lii mooy liste finale bi mm-hmm. conseil constitutionnel nag mooy mooy mooy mooy mooy banqaas bi gën a féete kaw ci wàllu yoon ah dañu dañuy respecté donte décision ba ñu jël da lay metti ci sa xol ndax da xam ne injustice buñ la teg la. waaye injustice commencé wul ci ak yow. danga koy da koy nangu xam ne intérêt réew mi mooy li ëpp solo. Mm-hmm. donc dañu war a dem élection ak liste bi nga xam ne mooy la liste finale. noonu la war a demee président Macky Sall loolu la leen waxoon ne leen man décision conseil constitutionnel munuma ci dara. Mm-hmm. te bu boobaa moom sax day fekk mu dem. day fekk mu dem donc. bu ñu buggee régler problème mu Sénégal fi ñu toll nii. Mhm. ñu am sañ-sañu ne président Macky Sall jëlal say responsabilité parce que man dama jàpp bu demee 2 avril te organiser wul élection wàcc na ay responsabilité loolu laa jàpp responsabilité mooy mu def li ko ñi ko jiitu woon def na ñu ko joxee nguur gi mhm. vraiment mu joxe nguur gi noonu ci ki koy wut man noonu laa ci gis bu defee leneen Euh, tooñ na Sénégal tooñ na démocratie Sénégal te deful li nga xam ne moom la ñuy xaar ci niveau responsabilité man noonu laa ko jàppee euh, semaine bi ñuy dugg. ah xanaa dinañ am date euh, boo xam ne bi ci la ñuy dem élection balaa président di Macky Sall di dem. Mhm. bu ñu ko amulee conseil constitutionnel ñoom dañuy wax ak ñoom directement publiquement bien sûr nee nañ c'est les sept sages maanaam ñi nga xam ne vraiment. ci ñoom la ñu am yaakaar bu lëndëm lëndëm amee ci ni ñu gisee yoon droit mais ñoom ñu wax li yoon wax ndax jot nañoo wax président Macky Sall organiser l'élection yi avant ngay dem dañ ko ko wax nag ci njekk ak teranga ndax noonu ngay wax ak président ak euh, président de la république ni ma ko waxee voilà nga nga doon daw wala mag góor wala jigéen président de la république moo ñu féete kaw ci wàllu àddina ni ñuy doxalee àddina mhm. maanaam gouvernance waaw ñoom it ñu jox ko cër boobu waaye wax nañ ko très clairement et très fermement ne mënoo bëtal élection yi organiser avant ngay dem waaw loolu bu fekkee ne yéen jox ngeen ko ko te waxul li mu war a def moom sax nee na dina saisir conseil constitutionnel pour ñu valider ab date jox nañ ko ab proposition mais bu demee conseil constitutionnel ni ma leen xam li ma jàpp ak li ma xam en tant que ancien ministre de la justice nag aussi mm-hmm. mënuñoo jalgati li nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a wax mm-hmm. boo indee 2 juin dinañ la ne non or élection yi dañ ko war a organiser avant le 2 avril bu ko defee li may am yaakaar mooy ñu jàpp bés ñoom parce que président Macky Sall bëggul a jàpp bés metti nañu nag parce que ku mel ni man 2011 laa àndoon ak président Macky Sall 2012 ba ñu ba mu falu ñu falaat ko donc yàlla vraiment defal na ko teraanga Sénégal aussi defal nañ ko teraanga ndax teraanga weesuwul yow sa ma nga juddoo voilà ñu jiital la pendant douze ans amul teraanga bu ko war a weesu kon ni mu ñu war a delloo teraanga ji fi ñu toll nii duñu sax wax li nga xam ne moo fi xew ci diggante bi ndax li fi xew metti na ay nit ñu faatu nit ñu ñu tëj ñu ñu foqati seen i droit man mii ñu foqati sama poste assemblée nationale mm-hmm. Ousmane Sonko ca kaso ba depuis ay weer voilà et cetera ay xale yoo xam ne tëj nañ leen six mois sept mois mm-hmm. soxna su ñuy wax Amidia voilà ma nga ca kaso ba tey ay weeri weeri weer moo ci gën a yàgg te voilà loolu yëpp sax bu buñ ko tegee ne waaye nim ñu bëggee bu fekkee ne buy génn voilà la des ci li ñu mën a rafetal ndax ñaaw na ba pare bu ñu waxantee dëgg rek waaye la des ci lañ li mën a rafetale mooy mu jàppal ñu bës conseil constitutionnel bu fekkee ne président Macky Sall jàppul bés nañu wax telle date avant le 2 avril mooy datu élection yi administration dal di ci tënku dégg naa président nag assemblée muy tëkku conseil constitutionnel mooy ba muy wax bu ma neex ku mu neex ak ku mu naqari bon yooyu yëpp sax wax yooyu yëpp jaru ko ci mm-hmm. jaru ko ci franchement wala mooy mooy mooy kilifa réew mi kilifa nag yooyu yenn mais justement waxam jooju noonu est-ce que duñ ko euh, duñ ko amal euh, beneen lecture euh, mooy que ni conseil constitutionnel lu mu mënti dogal aussi man maa yor décret maa mun a convoquer le corps électoral wala le collège électoral te euh, amaana date bu ma neex laa koy laa koy laa koy euh, laa koy jël est-ce que euh, am nga njortu bu rafet que ni président Macky Sall dem te du bind li nga xamante ni mooy décret bi convoquer le corps électoral. waa xam nga ci démocratie buy dox mosoo dégg président de la république ak conseil constitutionnel ñuy ñuy ñuy ñuy xëccoo. Mm-hmm. ba muy nuru teesante sax teesante lay mujj nuru boo xoolee kàddu yi euh, ci démocratie buy dox président de la république nekkul en dessus des loi tiimul ti tiimul yoon de mhm. dafa war a doxal yoon voilà décret mhm. ak loi da nga koy teg ci yoon boo ko tegul ci yoon li xew bi mu bi mu <laughs> ca la mujj mooy am mhm. conseil constitutionnel ne la loi bi nga watelu assemblée nationale am nga sa majorité waaye dëppoowul la constitution dellu décret bi noonu mënoo jël décret rek di di ci di ci di ci ci def loo xam ne lii méngoowul ak yoon mm-hmm. donc président de la république dama jàpp ne kàddu googu sax wax dëgg yàlla euh, amu ci woon yoon moom pré conseil constitutionnel bu jàppee ne tel bës la na bind décret mm-hmm. convoquer le le corps électoral mm-hmm. voilà loolay loolay cëram parce que man li ma njoxtu mooy bëggut jàpp bés bëggula organiser élection parce que nee day dem le 2 avril coûte que parce que bu jàppee bés. loolu aussi nit ñi war nañoo xam lu tax bëggul jàpp bés. et pourquoi wax ñu ko. bu xasee ba jàpp bés. ba élection bi tàmbale. processus mhm. bi. constitution daf ko ne. Mhm. da ngay toog xaar ba ñu fal sa sa ki lay ki lay wuutu nga jox ko ngay mais pourquoi président bëgg dem alors que euh, mën na toog euh, quelque ku doon wut euh, lu mu tudd mandat bu ñu prorogé huit mois mun nga toog deux semaines wala trois semaines de plus ah mais man dama jàpp ci huit mois yi amu ko mhm. la mu bëggoon ci huit mois yi xam nañu ko ah mooy mooy changer liste bi changer candidat man loolu jàpp. Mhm. ci huit mois yi bu ci toogoon Amadou Ba. bu ñu reprendre processus bi njortoo waa APR wala waa Benno ni ñoom aussi comme dañu changer processus bi dañuy changer candidat. non loolu seen affaire la kooku man wax dëgg yàlla du ma ci dugg ñoom seen nañ seet nañu man am naa candidat maa ngi ci coalition Diomaye président. Mhm. ñoom nañ def li li li ñu bëgg a def li seen xel fi mu ne nii li ñuy waxtaanee mooy yoon. Mhm. wàllu yoon président de bu fekkee ne organiser na jàpp nañ bés. avant muy dem yoon dafa ne foog mu toog ba def passation de service. Mhm. ak ki nga xam ne ki ñuy fal. Mhm. man nag dama jàpp loolu la président bëggul parce que <laughs> njortu naa ne. <laughs> voilà Bassirou Diomaye Faye mooy gagné. lan lay bañ si def passation de service. ak Bassirou Diomaye Faye ak Bassirou Diomaye ah waaw kooku moom lañ ko war a laaj. <laughs> parce que nag fu ne jaar naa fa ak Pastef ah moom fu ne jaar na fa ak ñoom voilà mais loolu la yàlla dogal tey xam ne loolu la yàlla dogal voilà nga ñëw toog mu lay xool nga koy xool nga jox ko say conseil d'ancien président ne voilà léegi caabi jàngoog voilà nga am sax fierté ne beneen génération moo la remplacé voilà parce que magee na ko presque vingt ans waaye mais noonu la demee Ablaye Wade ñaata ñaata at la fi presque trente ans. te jaar nañ fi aussi te jaar nañ fu ne fu ne. nañ ko fi benn tàkkusaan commissariat donc man li ma gis daal mooy na na na dépassé ay émotion nga boo nekkee ci àddina. Mhm. day am émotion luñ la def la metti metti metti mais <laughs> waa Pastef ñoom ñoo xanaa ñoo war a gën a siisu sax voilà ne ñun bëgguñoo passation ak président Macky Sall voilà mais da ngay dépasser am mhm. dépassement voilà parce que nag yow ni ma ko waxee yow ci wàllu àddina mhm. yaa yaa yaa yaa jàppate ñëpp euh, def passation bi dal di dem man noonu laa ko gisee mhm. njortoo mu def leen beneen coup ba euh, dem ba ci veille bi démissionné indi maam euh, maam Diop bu président assemblée national moom aussi mu wax fi toog six mois yoo xamante ni mooy xool kañ lay organiser élection ak yu mel pour rek voilà pour vous embêter encore et davantage waaw loolu président Macky Sall lan la ciy gagné lan lay gañe ci def lu mel noonu dara au contraire def naa ne héritage am lay gën a voilà nasaxal loolu laa jàpp niñ koy fàttalikoo mooy ab président bu démissionné d'ailleurs nee na démissionné wul dégg nga ko dégg naa ko lool nee na ah, yàgg nay jigéen ah waay bari na kay <laughs> ok bari na <laughs> ok ok bari na mais en tout cas moo ko wax te damay jàpp ba léegi dañu koy jox cëru président de la république. ba tey kàddu yi président de la république quand même. Euh, jëfe la tudd voilà foo war a sacré euh, kon nee na du démissionné. Mm-hmm. donc bu jàppul élection datu élection mooy day dem le 2 avril sans Sénégal ak njiit loolu nag lu ne xaj na si. lu ne xaj na si ndax fi ñuy wax ni munoo maa wool professeur de droit bu la ne diw mm-hmm. yoon nee na mooy ji mooy mooy moo koy wut mm-hmm. amut. du ci constitution du ci loi voilà ab soldat mën na ñëw ne bon man moo war a assurer intérim euh, intérim parce que sécurité nationale hmm. dal di ñëw toog keneen ne non nañu jàpp ne cas de vacances la hmm. boo xam ne kenn prévoiru ko woon nañ indi président de l'Assemblée nationale mu toog nit ñi ne non non non euh, d'accord uñu euh, nañu organiser élection bi tout de suite tout de suite sans campagne électorale Assemblée nationale ne non dañu war a changer le code électoral parce que nee nañu campagne yu trois semaines la gis nga coow loolu. est-ce que sénégalais yi vraiment coow loolu encore coono boobu dinañ leen ko teg. est-ce que président Macky Sall vraiment mënta am yërmande ci sénégalais yi éviter leen coono bii ak coow lii may wax mu mën a am mu mën a résultat bu ne mën cee am te lenn rek la ko mën a defee mooy mu retenir datu élection avant muy dem bu retenir datu élection avant muy dem ñu def suñuy élection noonu noonu laa ko gisee. Euh, mais ci démarche euh, président Macky Sall est-ce que ñëw na ku topp logique bi ngay wax euh, mooy que mu retenir date élection avant muy dem suivre processus bi ba def passation de service bi. Sénégal bàyyi ko way bu rafet comme ñeneen ñi. gisuma loolu gisuma loolu parce que li muy def man xaw ma kan a koy conseiller ci fan yi mais du ay conseil yu baax.